dal leen ak jàmm dayoom bu màgg ak taxawaayam bu yaatu bu mu amoon ci yoonu murid tax na xoloo murid boo tijji fekk ca Maam Saliou Mbacké cofeel gu réew mi am ci moom tax na ba at mu jot ay su weerub décembre terce day mel ni dañuy fàttaliku ab naqar tiis gu ñu amoon ci demuk Maam Saliou Mbàkke googu loole waral lu bari ci murit yi saay su jamono ji teeroo seen xol daanaka dootul neex ngir nammeel gu ñu am ci kilifa googu képp kuy murit bëgg nga sëriñ Saliou Mbàkke ba demam daal di lay métti lool rawatina nag ñi nga xam dañoo féete ci kërub sëriñ Cheikh Béthio ma woon nekkoon njiitalu xamante ni daanaka Serigne Saliou Mbacke képp la ñu ko xamal la ngir ànd gu mu àndoon ak moom ak jox gum ko joxoon boppam demoon na sax bay wax ne moom Serigne Béthio Thioune lépp lu mu am ci Serigne Saliou Mbacke la ko amee ba tax ci barkeb Serigne Saliou Mbacke ci la doon defee lépp loo xamante ne mu ngi ko doon def boobule cofeel ak mbëgeel gu doxoon ci diggante Serigne Cheikh Béthio Thioune jiital cantaakun yewoon ak maam Saliou Mbacke nekkoon xalif général kul murit nekkoon ñu ràññee te bëggoon ko lool ci yoonu murit indilaat fii ci ay ñu nga xamante ne dañ ciy àndandoo ngir fàttaliku yenn ci ay jamonoom bi muy nekk ci àdduna ma def sama diine muy sant Serigne Saliou ku ci leneen nekkal ci leneen man sama diine mooy sant Serigne Saliou ci fàttali maam Saliou Mbacké mu ngi gane si àdduna ca atum 1915 fële ca Diourbel waaye itam mi ngi génnee àdduna foofu ci Touba ca fukki juróom-ñett ca weerum decembre ci atum 2007 boobu ba léegi nit ñi di ko fàttaliku di joy demuk maam Saliou Mbacké mi nga xamante ne moo nekkoon juróomeelu xalif général des Mourides ñi nga xamante ne ñoom ñoo teewaloon Cheikh Ahmadou Bamba ci xilaafa gi moom Serigne Saliou Mbacké uufoon ñëpp bëggoon ñëpp joxoon cër ñëpp waaye rawatina ki ci gën a ràññeeku ci ki nga xamante ne mooy taalibeem yi di Serigne Cheikh Béthio Thioune mi nga xamante ne daanaka wax nañ di daf ko seexal muy loo xamante ne ñi ko am bari wuñu ba tax njiital cantaakun yi nekkoon ko ràññeeku woon lool ci jëfe lu Serigne Saliou moomu le daanaka sax lu ëpp ci ay tur yi nga xamante ne doon nañ ko ko dàkkantalee moom sëriñ Saliou Mbacke dafay bokk ci looyu le tur daanaka lu ëpp ci ay yi nga xamante cantakun yi di Serigne Cheikh Béthio Thioune maam Saliou Mbacké daan na bokk ci tur bokk na ci tur yooyu li ñu mën a lim mooy jaamuk Serigne Saliou bi ak itam yeneen yu ci mel ni dofuk sëriñ Saliou Mbacké jàmbaaru Serigne Saliou bi wala sax cheikhub Serigne Saliou bu mu ci mënti doon ci tur yooyu moom Serigne Cheikh Béthio Thioune amoon mbégte lool ci dégg lu ni mel te doon ci am ab mbégte saay suñ ko woowee ngir cofeel ak mbëggeel gu mu amoon ci sëriñam boobu di maam Saliou Mbacké mu mel ni yooyu le dàkkantal la koo xamante ni dina jëmmal rek cofeel gi doxoon ci diggante maam Saliou Mbacké ak Serigne Cheikh Béthio Thioune mu nekkoon diggante bu yaatu te xóot boo xamante ne nii daanaka kenn mënu ko natt diggante Serigne Cheikh Béthio Thioune ak Serigne saaliyu Mbacké nekkoon na ab kéemtaan goo xamante ni taalibe yépp dañ cee yéemu bari na sax ci lu ñu wax ne moom njiital cantaakun yi di Serigne Cheikh Béthio Thioune daanaka bokk na ci nit ñi nga xamante ne ñoom rek ñoo mënoon a feeñal ci xar kanamu Serigne Saliou waaye ab muuñ gu yaatu te leer nañ firndeel rek mbégte gu maam Saliou daan am say su gisee taalibeem bi di Serigne Cheikh Béthio nekkoon njiital cantaakun ya woon nekkoon njiital cantaakun yi waaye ànd ak loolu moom Serigne Cheikh Béthio Thioune nekkoon na itam ñu ràññee lool ci taxawaayam ci yoonu murit ngir jëfe gum doon jëfe ndigal te doon ci teg lenn nangu gu mu nanguloon sëriñam ak ànd gu mu àndoon ak maam Saliou Mbacke ci lépp loo xamante ne ay bëgg-bëggam la ñenn ñi dem bay jël ci moom France ci wax naan jëfe ndigal buñ ko bëggee xool nañ ko xool ci Serigne Cheikh Béthio mi nga xamante ne tiitul yox-yoxul dayiwul te bàyyiwul benn yoon su fekkee ne sëriñ bi joxe na ndigal du ci daal di am benn kàddu da koy jëfee ba mu mat sëkk lii di wane joxe gu mu joxe woon boppam ba jeex takk ci Serigne Saliou Mbacké du ñu def lu dul ànd ak yéen ci ay vidéo ngir fàttalikuwaate jamono yooyu le ànd ak loolu itam di leen ñaanal ñoom ñaar ñëpp muy Serigne Saliou Mbacké ak waayam ba di Serigne Cheikh Béthio

koor wi nu am na ngërëmu yàlla. la wax. billahi Serigne Thierno ji xam naa waxi wolof lañu naa naan mooy góor waaye du moroomu góor kii kii dee su ko wax di wax góor kii kii ëpp góor ëpp lépp lu làmmiñ mën kii amul morom yàlla na fi yàq. ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Saliou Serigne Saliou yàgg fi ci ndax yàggam fi day mooy ndimbalul jaam mooy. man lañu xamal lu ma dul toog ci rajo ci télé bii di ko wax waaye nag daa juj nag léeg-léeg waaw su ko junjee ñu ne ëpp na moo tax samay wax dootu bari. dëgg naa ne ci jëf ji rek. ñu seere ni lii day ku ko Serigne Touba defalul mënoo ko. te kon Serigne Touba lu mu doon. moo ji jëf bu fekkee ni Serigne Touba def moo ko Serigne Touba mu doon waaye nag saa yu waxee ñu ne ëpp na te doo jóg seen wax yooyu dégluwuma ko maa ngi ci li ma ne li ma ne defuma ko sama bopp ko def ci man ku yóbbu gëm ku yóbbu ñàkk gëm loolu du léegi fi lan ko fekk waaye ni mu demee dëgg-dëgg mënumaa toog ci ab télé di ko wax kenn gëmalul sa bopp yàllaay gëmal ku mu ne ku ko neex man mii la ñu leeral mbir boobu gëm oh, buñ la waxoon man fiñ ma jaarale bu gëm loo ma kon ñu ni ëpp na waaye man mii lañu ñu gëmloo te xam naa fuñ ma jaarale bu gëm loo ma barke Serigne Saliou Mbacké kon wax ji du ko mag saa yu ma waxee ñu ne ëpp na te du ma wax lu dul liñ ma def liñ ma won ak liñ ma defal ak ki ma ko defal man sama lépp Serigne Saliou sama lépp Serigne Saliou maxrajan defar na ko maxrajan mooy lan mooy lan mooy loo dugg génn ci loo dugg génn ci boo ci mbir. boo duggee ci mbir. ba noonu. ni gàtt yi. ne xamoon nañu ni. xamoon nañu ne. tey day moom. tey day moom. da nga cay génn. da nga cay génn. set tamit. la déggee xanaa cant aw koy def. ragal du sant ku gëbul doo sant ku nay doo sant ab dof ku iñaan doo

bu yor jëm yi bu yàlla mi may wàll